wax ni ke ni wata nañ ci jamm ak salam alhamdullilah même ak même si que mi ngi taw amagul nak affluence bu am solo waye xam yaakar nañ ni ke ni taw bi dina arrêter dina sewet legi legi pour que aussi militants yépp ñoo voter massivement citoyens kenn ku ci nek mën s'exprimer wu mën jël ay responsabilité mën faire eh, un bon choix pour son député à Kaolack mais aussi son député à l'Assemblée nationale waaw procédure amagul dara lu ñu ma si signalé gu ma ah, amagul lu ñu ma signalé waaw taw bi moom dina si yàq lu bari sax ne def naa ne que ni fii du Ziguinchor te Kaolack waaye dañoo ragal taw sous la pluie bi ñoom amuñu volonté pour dikki mais luñ luñ mën a def pour mobiliser leen rek nañ ko def ndax oto yi ñu ngi def navette yi dem di ñëw pour mën leen jël ñoom ñëpp ñu mën a wote mais xam naa ne dina wàññi affluence bu solo moom